caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution, caution de retenue de garantie, caution définitive, assurance décennale, tout risque chantier et responsabilité civile. Pour plus d'informations, appelez vite au 33 889 82 10 ou rendez-vous sur www.sonac.sn. La Sonac SA, membre du groupe Sonam Assurance, votre partenaire pour toute forme de garantie. Entreprise régie par le Code SIMA. RFM Matin RFM Matin émission ou au Sénégal RFM Matin Tayal yàlla nyarf ne ñaar fukki un ben, ci 2021 xibaar yi ci kàllaamay wolof ak El Hadj Ndiogou Diène asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum salaam Georges di lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp xibaar li ci gën a fës borom fuur yi di tàmbale lakk tey mburu mu ni jaay ñeent fukki dërëm di dogal boo xam te ne nguur gi àndu ci tax ba ñoom borom fuur yi ne bañ ñu si dem cib wa ay xale taalibe doon jëm rëcc ci seenu daara ca tubaa ñaax si ñoom jëlee ñu ci gaañu gaañu am na sax ñu si jot rëcc kenn gisu leen na nit dañ tojoon seen i kër ca Tiwaawan Pël wey di yëglu ñuy sàkku nguur gi fay leen ndàmpaay yi mu ngi leen warloog ñoom naka noonu tam jox leen terrain yi mu leen digoon daañu ca xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yéenekaay mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne sudu nañ ci ay faram Elage Ndiogou Diène mbokk yi di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi dañ koy door ak mbirum mburu mi ñi nga xam te ne yi ñoom tey eh, daal nañuy tàmbali di lakk xeetu mburum bu bees boo xam te ñeent fukki dërëm lañ koy jaayee eh, dogal boobu eh, nguur gi ci nan tam kuréel yi aar way jëfandiku yi waaye boulanger yi nee na ñoom duñ ci dellu gannaaw benn yoon bañ ñu sax dem ba tëj seen fiir bañ a lakk mburu format bu bees mburu mi bi jar fukk soxal na lool boulanger yi njiitu fédération nationale ba ak ñi mu àndal ne dinañ ko teg ci rayon yi altine bi seeni yoon nekkatul ci gouvernement bi nangu ko am déet Amadou Gaye xool taxawaayu administration bi nan lañ taxawee hmm. bu dee jàmm la ñuy wut dara grève du am mais bu dee ay lañuy wut ay moom danañ def grève tëj suñuy fuur ñoo ko moom kenn jënd luñu ko ñooy fay suñuy traite donc loolu moom amuñ sa sikk sàkk longe yi pour loolu ñu bëri sax grève a bëgg donc il ah. suffit que lu ndaw déclenché ko après après grève bi nga ne lan mooy nekk. après am na plan d'action bu gën a. bu mel bu mel nan bu mel nan. non boobu moom inshallah allah dañ ko wax. bu ñu defee réunion fekk mardi ou mercredi. Amadou Gaye di xamle Amadou Gaye di xamle ne bu fekkente ne ñoom dañoo jël dogal ngir rek yokk mburu mi dafa fekk ñoom boulanger yi dañu nek ci ay jafé jafé yu reey manam amuñ ci dara. manam dañ ni mburu fanweer bi dañ ni ko dañ ko def obligatoirement. d'accord nañ ci loolu de waaye kenn waxul ñaata nga ciy def parce que kenn ñun jëndaluñu suñu farine kenn jëndaluñu suñu gasoil moo tax ñu ni kon boulanger yi nekk ngeen si jafe-jafe te mun leen yokk mburu mi kon nag leen yoon may mooy ngeen liggéey mburu deux cent bi ak mburu cent bi na gën a bëri seen liggéey bi pour ngi mën a am rentabilité parce que industrie la ñu il faut ñu am lu ñuy wax rentabilité maanaam am ototaa boobu parce que bu ñu amee génne ci jafe-jafe yi mën a respecter alimentation bi ni mu loolu dong la ñu wax yoon lañu nekk jalgati yoon yoon mooñ ko may. wax ji kon buur na boulanger yi noppi nañ ngir rekk jàmmarloog gouvernement bi bu fekkente ne nangul seeni proposition bi di defar format bu bees mburu bi te mu war a jar ñeenti fukki dërëm. Omar euh, Mbow wax ci nit ñi ñu tëjoon seen kër ca Tiwaawoon Pël dem na toogaanu ñaxtu la ñu amal ngir bëgg ci kilifa yi ñu daal di euh, sàmmonteeg seen i diggé jëm nag ci fay leen seen ndàmpaay bu mat sëkk waaye itam euh, jox leen terrain yoo xam ne leen ko diggoon di vingt hectares yoo xam président de la république mu leen ko diggoon ngir ñu yóbbu leen fa ba léegi gis ñu ci dara Sadio Sané bokk ci nit ñooñu tëj seen kër ca Tiwaawoon Pël ci micro Abdou bu Diagne. suuf nañu jox suñu impense état moo jox 20 hectares yi te ñu lañ ko fas yéene dëkkee incha allahu rabbi si yàlla àndee si jàmm ak salaam bugguñu dara takk nag dañu ñaan yàlla ñu dëkkee ko si jàmm ak salaam ndax état moo ñu ko jox si jàmm ak salaam ginnaaw bu ñu ko moomee ñu ñu tojal ñu ñu terrassé ko encore une fois fii ñoo ko terrassé ba mu mel nii ay din ñoo fi nekkoon boo fi ñëwee sax bu ñu nee jëlee fi doo ko jël donc tey mu ñu toog dëkk ay ay projet war a jàll ñu ne fii néew ju doole war ñu fi dëkk loolu du dëgg du yoon amul Sénégalais bu ci kaw amul Sénégal bu ci suuf ñoo fi yem képp donc loolu leer la donc son excellence yow la ñuy waxal ñu yow la ñuy fal waxuñu ak ki mu mën a doon yow la ñuy waxal mais képp koo xamante tey nga suñu dossier na nga ci def lu gaaw monsieur Mame Boye Diao ñu ngi lay woo suñu avona joxuñu ko wax dee nag jëf joxuñu suñu avona ndax yow toog nga télé wax kanam sénégalais yëpp victime Tivaouane Peulh jox nañu leen 20 hectares ñun ñun état xam nañ ne 20 hectares yu leen mais dañu leen feneen yeneen i 20 hectares loolu yaa ko wax mais ginnaaw loolu li nga xam ne moom mooy avenant bi mu ngi sa loxo yaa ko war a signé signé ko ngir yàlla. mu nekkoon euh, Sadio Sané doon wax ci turu nit ñi taj seen kër ca Tivaouane Pël wax ci ñeneen nit ñi ñaxtu di askanu baari Sine di dëkk bu nekk ci commune bu Ngayoxem ca diwaanu Fatick ñoom nag leneen daf mel ni seen dëkk ba bokk luñ Sénégal ndaxte dara amuñu ko Aminata bi village la boo xam ni ci commune bu Ngayokhème la bokk te nee ñu bokk na ci gën a rëy gën a itam peuplé bari siin daanaka dara amu fa buñ sukkandiku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkk nee ñu benn école élémentaire boo xam ne daanaka taxul ñuy wax moom moo fa nekk te itam benn bërëbu fajukaay amu fa Abdoulaye Tine bari siin la dëkk. nous n'avons qu'une seule école élémentaire qui n'est pas clôturée nous n'avons pas de case de santé de poste de santé. Marie Thiaw nag ñàkkum bërëbu fajukaay boobu mës na indil ay loraange yu mat sëkk. omb naa fi am 9 mois ñu ma yóbbu bañ ma yóbbu naaj bi daatan tàng jër ay 3 heures yooyu lañ ma yeb ci saret di ma yóbbu tàngoor gi metti peeru metti boo xam ne dèjà yoon yi baaxul ñoom ma dem ba si yoon bi laa amee doom bi ma amee doom doom ji daa mujj dellu coono gi ma sonn si gi yoon yu metti yi loolu moo ko waral. Bari Sine nag village la bu sore te itam bu enclavé maanaam bu ruqee naqaree dem ña fa dëkk nag bëgguñu defar leen ay yoon yoo xam ni mën nañ ciy aw. am na yoon woo xamante ne dafa jógee Bambey ñëw fii mi ngi toll si ñaar fukki kilomètres ak juróom-benn loolu nag bu ko defaree day jàll baari njëlit battal ndaalaan daal di jàll ba fa la ñuy wax fii seen Mbadaan yoon woowu yoonu mag la bu nawet jotee kenn du mën a dem fenn. ñàkkum courant itam bokk na ci li nga xam ni métti na leen te moo ne day ñoom nee ñu seen village boobu mbay ak itam sàmm la ñuy gën a def ci wàllu activité. électrification bi nga xam ne président waxoon na ko si PUDC dëkk yi ñi nga xam ne ñoo ñu gën a sës muy Ngoonin ak euh, ndox ak euh, Ngangarlam am nañ courant te baari gi nga xam ne mooy baari Sine amul courant. lii nga xam ne nag moom mooy jafe-jafe ci seen village ñi ngi ko doon xamle ci benn marche pacifique bu ñu fa doon amal jigéen ña fa dëkkee nag profité ci ngir wax ñoom itam jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy am ngir rek jot ci ndox mu sell Aminata Goudiaby Fatick RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a askan wi. RFM radio bi jaamu seen soxla. juróom-ñaari minute mo tegu ci 8h way ci xibaar yi wax ci mbirum uh, fat gi ñu faat douanier bi di la Léon Yuga fay ca Rosso Sénégal uh, ki nga xam te ne nag uh, lañ ci teg loxo njot na mo def mbir mi moom nag garde avion ni ngi koy wëyel alhamis ba légui kon lañ ko teyé mu nekk ko xam te gardien la woon ci poste douane bu Rosso Sénégal enquête bi nak ñi ngi koy wëyel and ci police scientifique. meneen nu mbir di mbirum euh, lakk ga ñu lakkoon ay table bon ak i kër jàngalekat ca Jamweli nekk ca diwaanu Vélingara gendarmerie nag am na ñaari ndaw dëkk ba yoo xam teg nañ leen loxo ñeneen ñi ñu ngi leen di wër ñoom ndaw ñooñu nag euh, dañoo bëggoon baal ñu tere leen ko ñu mer nag daal di dem taal ay table bon naka noonu tam taal fi jàngalekat yi dëkk foofu ca Jamweli Abdoulaye Diallo ñuy wéyal seni enquête ci mbirum ndaw yu jambeli di dëkk kaw bu goxu nemataba bir département bu velengara élément gendarmerie yi di amal bile enquête ñoo teg loxo ci kaw ñaari ndaw yu dëkk boobu yile ndaw yi ñu jàpp dañu doon ay ndongoy dara ca lycée shérif samsidin aydara bu velengara ñoo ngi leen dencagum ca gendarmerie yeneen ndaw yi ñoom dañoo daal di daw kenn gisagu leen waaye gendarme yaa ngi leen di wër fàttali ne dañuy topp yile ndaw ginaaw bi ñu làkkee ay table banc yu dara bu ndaw bu seeni dëkk ak ñu làkk benn néeg bi ñu jagleel jàngalekat ya ca boobe daara ñoo ngi amal ñaawtef yi ni mel ginnaaw bi ñu leen teree amal ab baal ca biir daara bi RFM Kolda Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo bat bu marine nationale bii di euh, Ferlo euh, teg loxo ay nit ñoo xam dañoo bëggoon euh, mbëkki loolu nag mi ngi am nag samedi ci ngoon ca booru Jifeer nee nañ nag nit ñi nekkoon ci bat boobu ci gaal googu lañ jëloon kon bëgg a dem ñu ngi toll ci juróom-ñaar fukki nit ak benn muy fukk ak juróom-benn doomu Sénégal ak juróom fukk ak juróomi doomu Gambie ñoom sax ña nga déparé woon seen gaal googu ca Bara nekk ca Gambie. ngir bëgg a dem ca tugal ñu teg leen uh, loxo. mbir mu doy waar xew ca Touba foofu nag ay taalibe yu nekk ci benn daara bu ñuy jàngee uh, ñoo doon uh, jéem a rëcc ci troisième étage ba leen tëj ngir mën a dem rëcc daal di daw ndaxte neen da leen di météo foofu la ca daara ba am na ñaar ci ñoom ñi ci amee gaañu gaañu ñenn ci ñoom tamit jot na coow rëcc kenn gisu leen leeral ak Babacar Diouf. mbir mi mu ngi xew ci samedi ji ci guddi gi. ci daara Baye Cissé ca Touba ci quartier Madiana yenn ndongo daara ñoo doon commencé di yéeg mur bi di tëb daw daara ji ñu nekk li waral moo di ndongo dara yi nee nañ liñ di jox ñu koy lekk baaxul ci ñoom. mu di explication yoo xam ne nii nag sëriñ bi dàq na ko Mamadou Lamine Cissé ñu koy wooyee Cissé nee li ndongo yi wax dara amu ci. dégg naa am ñu naan cox la ñuy lekk xel nangu ko. nit tabax ñaari war un milliard nga wëlbati da faraatu cox booy jox doo nga ñuy dund soo ñëwoon ci biir magasin bi da nga fekk ceeb fekk fi dugub fekk fi maanaam ñebbe lépp ne ci biir daara ji leneen loo xam ne nii sëriñ daara bi dàq na ko moo di nit ñu ne am na ñu fa faatu kenn faatu fa benn xale rek moo fa am gaañu gaañu ci loos wi te nag ñu ngi koy faj ca hôpital Matlaboul Fawzayni bu Touba. ñun nag bu dégg ab xibaar balaa cee wax dara daa a xam xaar ba am ca lu leer tooñ nañu nag ba fa tooñeem lool xam nga daaree jàmbur nga jékki-jékki ñëw ne juróom-ñaari nit faatu nañ fa te dara amu ca du dëgg loolu ay tooñ tooñ baaxul na gaa yi bàyyi tooñ tooñ baaxul. lan moo indi situation bi kenn mënagu koo wax ci lu leer wante ñu ci bëri ñu ngi naan dañ leen doon mitital ci daara moo tax ñu daw jóge fi Diourbel RFM Babacar Diouf Babacar Diouf dellu si ci Ndakaaru wax ci leneen jëm ci e, film série bii di infidèle waa Jamra nee nañ la waxante wala ak ñoom ci yenn e, image yi ñu bañ ko wane wanete ak yeneen loolu nag e, def ñu ko tax sax nee nañu daañu def ay plainte jëmale ko ci ñu def série boobule di infidèle ñetti plainte yooyu benn ca CNRA lay doon beneen ca procureur ñetteel moom ca direction de la cinématographie lañ koy yóbbu Mame Mactar Gueye ñaaree lañ jit bu Jamra ñu déglu ko ci Evenprod bii defar infidèle moomul nit ñi ndax tubaab dafa ne votre liberté s'arrête là où commence des autres moom dafa jël la mu moom ba noppi la mu bokk ak nit ñi mu di ko xëccoog ñoom te loolu Jamra inventé wul dara ñëpp ci teg seen bët série infidèle dafa spécialisé wu ci xotti war ma jigéen bërkaat yi démb defaati nañ seen manin foofu moom amul dara loolu lu ñu leen di nettali parce que yéen di ngeen dugg ci réseaux sociaux yi mu di benn scène bu ñàkk xam ne teggin mayewul ma di ko répété fii ñu jébbal ko saytu yooyu muy Seynera bu Babacar Diagne kon nag bu talaataa incha allah ànd en délégation déposé ko bu ñu sa joggé dinañ am copie bu ñuy jox procureur de la république parce que mom itam am na ci ben wàll muy la violation de l'article de la loi du 25 janvier 2008 bu ñu fa paree nak dinañ dem ci directeur de la cinématographie plainte yi gannaaw suba talata lañ koy jébbal kilifa yooyu mën a limal légui après ñu daal di tok bàyyi yoon mu def liggéeyam insha allah. léegi yéen ndax série bobu rek ngeen diviser visé wala am na parce que déedéet réewu leen bi nga xamné ku ne gis na ko ay góor jigéen lañu jël émaay leen am yi pose ongle puudaru di dammi loxo tex tex tex di banaliser ngóor de di ko def di ko jaarale ci kaf ak moi et la chaîne 86 bu canal Horizon euh, ñu di Nicolas Déon dañ ko jaarale ci ay dessins animés xam des dessins animés beaucoup de c'est pas pour les adultes c'est pour les enfants kon la volonté elle est claire que les yi la Google bëgg affirme LGBT ndax commencement ba ba fin LGBT la si vous nous réew rëbb à travers l'article 319 suñu diine ñaari diine yëpp diine chrétien ak diine catholique noonu tamit dàq nañu. mu nekkoon Mame Mactar Guèye ñaareelu njiit ONG euh, Jamra ci jokkoom ak Omar Mbow daaneel ak wàllu masque yi gannaaw euh, bi nguur gi jëlee dogal ne nit yi léegi dañ ko di sol euh, police nag di ñu taxaw temb ngir jëfee digle yooyu la nee nañu nag daañu tàmbali di wër képp ko xam te ne solo masque ci bërëb yi ñu ko santaane yoon dina dal sa kaw reportage Ndeye Mati Dieng. léegi rek tey ñu door jëmmal arrêté bu ministère de l'intérieur bi nga xam ne dafay sàkku ci ndaw lu ne mu takk maskam ci bërëbu dajekaay yi police nationale jot na ab communiqué ngir tàmbali liggéey bi fexe ba ñu daal di sàmmonte ak digle yi nga xamante ne ministère de l'intérieur moom moo ko joxe te loolu jubluwu ci lenn lu dul fexe ba daal di dakkal law gi nga xamante ni coronavirus mu ngi koy law police nag kon na mu def liggéey bu ni mel ci bërëb yu ci mel ni jaba yi bërëbu liggéeyukaay moo xam bu nguur wala bu keneen moom noonu itam ci biir oto yi moo xam bi nga xamante ne ñëpp ko bokk ak boo xamante ni yaa ko moomal sa bopp na fekk rek boobee oto def lu ëpp ñaari nit dañuy sàkku ci ñoom ñu takk lili di masque ci boobee xaatim ba tey nga xam ni directeur de la sécurité publique moom moo ko signé ña ngay xamle ni dinañ def seen kéem kattan ba kenn ku ci nekk sàmmonte ak digle yi nga xamante ne ministère de l'intérieur joxe na ko bañ ñu ci sax ba teg la ay daan yoo xam ne loi yi ak yi nas nañu programme yu ni mel ngir xeex mbas mi di coronavirus loolee nag ci ñaari vague yi nga xamante ni jot na fee jaar. Ndeye Mati Dieng daaneel ak yenn kàddu na Maboussa Thiam Maboussa Thiam nekkoon fi directeur général bu ADPM démb la génn àdduna fii ci Ndakaaru jotoon na nekk tamit moom euh, président euh, conseil d'administration bu Soka Maboussa Thiam nekkoon taaw ki fi ne woon premier ministre ndam si yàlla Habib euh, Thiam Maboussa Thiam kon tey jii lañ koy jébbal borom moom ci sëgg jullit yu ya fa ñu ñaan la woy fa sus kaam te xare ko àjjana yegsi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Mouhamed Jojo jërë ngeen jëf mbokk yi dañuy tàmbale xibaaru tàggat yaram yi ak Jeux olympiques Tokyo 2020 canoë kayak Jean euh, Jean Pierre Bouris mujjul qualifié ci deuxième tour bi athlète sénégalais bi nga xamee ne kon dafa amoon gaañu gaañu ci code bi moo tax euh, mu am jafe-jafe ngir mën a qualifié bu ñu sukkandikoo ci kaddu président fédération sénégalaise bu canoë kayak et aviron. Adi Fall lay wuyoo ñu teewlu ko ci jokkoom ak Youssouf Bodian. mu am dog-dog ah parce que quand même euh, euh, wàllu côté bi mu am benn mu am douleur yu métti. ba moo ko xamee dugg na it pour euh, commencer nag mais ba muy accès si porte mujj bi ba war a génnaat ci benn port bi si la am si la yëg ni daal douleur bi ñëw na ci boppam ci ci ci yaram bi. dafa obligé waat ci parce que règlement bi la la wax fa mu jaaraat fa mu jaaroon pour mën a agsi waat malheureusement booba fekk na manqué na ko tuuti en tout cas force parce que booba douleur bi xaw na ko ci moom alors du coup euh, il était obligé moom mu taxaw arrêté mais nag moom li ñu mën wax ci moom rek euh, qualification bi euh, xëy na échappé na ko waaye nag athlète bu am solo la bu am sérieux bu gëm li muy def buy gëm en tout cas défendre les couleurs du Sénégal bi nga xam ne moom la commencé def depuis 2016 ak même au delà de cela waaye maintenant li ñu koy ñaanal mooy euh, mu am gudd fan bi ak euh, jéem a fexe récupérer waat parce que am na soins yu mu war a continuer pour di ko def pour wàllu yaram bi et puis ñaareel ba mu am récupération bu doy pour mën a préparer échange yi nga xam ne ci kanamam lu mel ne ay championnat du monde yi nga xam ne mi fii septembre nañ ko def incha allah te it bon aussi xaleel la dese na ko encore il a 26 ans moom ak euh, jeune frère alors euh, Jeux olympiques yi en 2024 à Paris je pense que nous avons ci un yu pour mën a en tout cas ci monté ci podium bi nga xam ne pour le Sénégal. Adi Fall président fédération sénégalaise Bou, canoë kayak et aviron Amatoul, ay sénégalais yoo xam nous avons leen xaar compétition JO qui ci altine bi ak athlètes du Sénégal yi compétition bi ñu ko euh, Niki wat Niki Alarba ki Jeanne Boubien ci porte ci drapeau yu équipe euh, nationale bu Sénégal mom dina sobu ci fey lay ci 100 mètres nage libre ci ëllëg sa ci alxemes bi benen doomu Sénégal di Stéphane euh, Aimable mom dina sobu ci langue gi ci 100 mètres papillon ci walum JO yooyu ak football tournoi bi ñuy amal ci walum góor Afrique du Sud danaka éliminé une ko ci compétition bi Bafana Bafana France mo len daan ñeenti ci André Pierre Gignac nekkon ci ay jamono ci Olympique de Marseille mom mo duggal ñetti bi yu doomu France Côte d'Ivoire mom mok Brésil ken dugalul samorom morom dara zéro bi partout muy nak résultat bu baax bo xam ne éléphant yi Nek deuxième seen poule am ñenti poñ log Brésil Égypte qui ci ñettelu match bu africain yi Argentine moko ko daan euh, benn bal ci dara. wax ba tay ci football ak huitième de finale bu coupe de la ligue girafe euh, qualifié na diggam ak Mbour euh, Petite Côte ci tiro bi juróom benn bal ci juróom. bu temps réglementaire bi jexé nak ñaari équipe yi dañu témbo won un but partout. Médinois Wadjaraf, qu'on qualifie kon qui quart de finale bu coupe de la ligue wax ci présidence fédération sénégalaise de football Madi Touré mu Tournem, wéyal tournéem week bi samedi bi, dimanche bi mu ngi Saint-Louis ngir Dadjek, acteur yu football bi ci nak, président fédération wala boog ci fédération wala boog ci teewaayu président ligue bu football bu Saint-Louis. candidat bu renouveau bii di Madou ture wax na ak ñoom joxoñ leen li nga xamee ne foofu la bëgg a jëm ñu dem ca ndar Mohamed Nabi Madi Touré candidat à la présidence de la fédération sénégalaise de football jóge ci dëkk bi di Ndar ak yaakaar wu takku gannaaw ba mu dajee ak ñëpp ñi yëngatu ci walu football bi lé Saint-Louis dal mu naani sama xol fi le mësa dama bëgg développer le football sénégalais mais c'est un ensemble. té Saint-Louis dafa mësa porter sama cœur parce que dëkk bu ma neex la. Linguère yeeg première division nous sommes en partenariat avec la Linguère de Saint-Louis. ça prouve que dal c'est un Sénégal qui gagne. Madi Touré sax programme boo xam ni renouveau du football sénégalais. nouvelle gouvernance nouvelle politique marketing les infrastructures la politique de développement football féminin accord croix parties fédération collectivité locale état ak FIFA ak pour terminer c'est la politique sociale. c'est pour moi, leen ni football la li ma

USRAI euh, dan euh, Sibak 91 à 85 ASC Thiès euh, Amdam Digentem, ak ISEG 72 à 66 lujem jëm qui quatrième tour play down qui digeni match en retard Saltigé, dan CMT bu 52 à 51 Moki fi le Mokyen, qui yemook jërë ngeen jëf ci teewlu bi. jërëjëf yow tamit Mouhamed Diop. Euh, rajo askan wi. wàllum aada ak cosaan chronique culture bi ak Anna Rocha. leen di nuyu mbokk yi ñetteeli édition Jalawali festival bu Dagana jeex na ni ki euh, démb waaye ndax ñetteeli vague Covid 19 euh, bile euh, xew-xew bi dañ ko mujjee amal ci ñaari fan bokk na ci liñ fa gën a ràññee expo photo bi ñu dippee Dagana démb ngir dellu siwaat ci jaar-jaaru Waalo waaye itam gën koo xamle ñi nga xamante ni ñoo di askan wi foofee Diagne jot na dem ba Dagana. Dagana démb nekk benn activité bu ñu gën a ràññee si édition festival Jalawali mu nekk ab occasion si Mustafa na mi nga xam ne taxawal Jalawali festival bu Dagana ngir delloo njukkal nit ñi nga xam ñoo dugal seen loxo si développement wu Dagana. muy exposition bu mucc ayib parce que population Dagana seen bopp bu ñu ñëwee gis ko ku ci nekk da ngay da nga ci léeg-léeg nga xàmmee sa maam muy projet boo xamante ni dañ koy def at bu yàlla sàkk xamante nit ñi danañ gën xam ñan ñoo fi nekkoon ñan ñoo fi def lu jaloore et que loolu ñu ni woon nag mënuñu ko def rek yam foofu mais dañ koy dañuy créer ay activités ci biir pour que visiteurs yi nekk à l'aise loolu moo indi mu am hip-hopeurs yi mu am bambaado yi mooy benn xeet ci pël yi def seen manin mu nekk xew-xewu caada boo xam ne ñi ngi ko amalee si musée Fudd te li ko waral mooy mbas mi di coronavirus loolee tax ba organisateurs yi daal di fay amalee activités yu bëri lu si mel na théâtre ay spectacle waaye tamit def promotion instrument la fekk baax ku ni Assane Thiam ni ñoom Massamba Baaba Maal tama moo tax te tama li muy tuuti yëpp noonu la amee njariñ ci aada ak cosaanu waalo bu ko defee nag day baax mu war a nekk bañ a nekk rek ay tëggu mbumbaay mais ñu boole ko wane cosaanu waalo ñetteelu édition bi nga xam ne ñi ngi ko taxawal si contexte pandémie yàqul dara si mbir yi lee ndax organisateurs yi daal nañu amal seen programme lépp nag ñu tekk si respecté lii di geste barrière yi organisateur yi seen xel mu ngi ci ñeenteel yi édition bi ñuy diggéen yi dina am ay innovation ci gis-gisu euh, promoteuru Dialawali festival bi jot na nag léegi ñu euh, décentraliser boobule euh, xew-xew Mustapha Nam lay wuyoo ñu déglu ko ci micro Mamadou Diagne. idée bi moy ñu fexé ba nga xam dañuy décentraliser ay activités nga ñew ñu la tay dé activité nangam ñang koy défé Bokhol ay exemple Bokhol amna ben grand photographe archive yi mu yoré mom rek buñ ko jëlone tay exposition bi ñu def Dagana ñu def ko Bokhol pour delloo limu mom mu moom lolu ko porté bi mënu loko xam ñu dem Richard Toll Richard Toll nga ni hip hopper par exemple Richard Toll bi yoon Richard Toll moo ko yore gars yi ñu ne lan lañ fa war a def suñu dëkk lu dëkk maam Fawad de wel ainsi côté culture lan la gars yi apporter parce que tak culture dafa am njariñ ci gox buñ ko bàyyee rek dañuy réer te ñun ñun Afrique loolu mooy suñu problème dañu am tendance yaakaar ni culture yëfu foo la mais culture du foo culture identité la ñun ñi nekk artiste ak ñun ñuy yëngu si gox boobu dañu war di di liggéey pour que nit ñi di bañ a fàtte loolu jaajëfal bu baax a baax euh, suñu correspondant Mamadou Diagne mi nga xamante mo réalisé chronique culture altine dilé dilen leen jaajëfal yéen it mbokk yi ci déglu bi dig daje ëlëk inshallah. allah. RFM li ci yéenekaay yi. Sedima mi di jaglel sen aliment bétail jur gi laadum ak jogi tourumino tout ruminant di may sen revue de presse. NCA assurance auto. sen savon de Marseille Alfé Kinkiri AAD Abdou Alima Diop. sen gamme Opalia sen touray raktak bi rey ak USAID Breakthrough ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. li ci yéenekaay yi Mouhamed Ali Mouba lañ ci àndal. dal leen ak jàmm. Covid 19 troisième vague. aa ah, nee leen Sénégal mi ngi ci guddi ju bët setagul nañ ñaanal suñu réew mu bañ a dem ci loo xamante ni daanaka kenn ñaanu ko yàlla suñu laaj sama naataango yi lan moo xewati lan mooy problème bi ba ñu dem ba ñaanal Sénégal naataango yi ne ah explosion des cas de coronavirus waaw yokkute cas coronavirus yi ku nekk gis na ko nee leen ñaar problème décès yi ndaxte ku nekk gis na ne ni ñu ñuy deyee ci lopito yi sama naataango ne li métti na ndaxte ku nekk gis na li nu mel sonaataangu bi di journal Le Quotidien ne waaw fii la yàlla doon xaare Sénégal dafa mel ni ndaxte ku nekk gis na lu xew sama naataango jox parole gaskat bàmmeel yi nekk ci yof kooku ne waaw man bi ma nekkee fii ba léegi ci sëgg yof yi man musuma gis lu nu mel ni chaque jour ay bàmmeel yu be chaque jour ñuy gas gestionnaire sëgg yi nekk Saint Lazare cimetière catholique bi ne man man nu ma gisee yëf yi nii lii ci ñaari at ah léegi ñu tëj cimetière léegi cimetière bi fees sama naataango bi journal observateur ne ah, waxal rek catastrophe Senegal, nekk na kon ci guddi jubat setagul sama natango yok ni waaw fu mu ni sa dem nañ ba uppi kon CTE bi nekk ci hangar bi naka noonu itam CTE bi nekk géréw ñoom ñëpp dañ leen ubbi benn épidémiologiste docteur Abdoulaye Kébé sama natango l'observateur laaj ko moom naka la gisee yëfi mu ne xam nga laal troisième vague bi ma gis ni bi nar na mi waxante dëgg ku ko fooye sa bopp nga fooye sama natango bi di journal tribune jël xalimam ne 2343 cas lu ëpp ñaari yunni cas ci ñetti fan naka noonu itam ñu am ki ɲarifukinit ak juróom dese ci ñetti fan samana tango journal las ah covid 19 mi ngi kon nit ñi waa le quotidien jël xalim ne waaye nag dafa mel ni ba léegi ni am ñu ngi continuer di di def ni yëfu melni kom ni comme covid 19 amul duñu sol masque duñu respecté dara samana tango né ah ñooñu danyo dañoo bëgg yóbbu ñeneen ñi alakira mel ni loolu la léegi gi moo kon responsabilité ci wàllu wule su ko defee mu aar ñeneen ñi sama naataango bi journaliste ko ne ah dafa ni police dégg na criminel ndaxte dina def ay opération ciblée ngir ñu respecter kon mesure restrictive yooyu le sama naataango ne ah marché lieu public yi lieu de sport yi transport ak salle de spectacle yi dañuy dem ci bëreub yooyu le xool naka la yëf mel foofu le sama naataango né ah nañ def attention nak coronavirus bi yagana na nañ def attention ñu baña indi wat fi rébellion sama naataango joxaat parole directeur général hôpital Dal Jam, kooku nag population yi dañ jàppale ndaxte ku nekk gis na fu mu toll nii kon nekk nañ ci situation bu métti yëf yi n'y na nañu jàppale ñu wax nag ci recours l'opposition bi conseil constitutionnel rejeté ko sama naataango bi di journal Walfatri, xëy nag jox parole l'opposition bi Moustapha ah man lu gis ah conseil constitutionnel lo abiko ko créé daanaka daf ko fulal daf ko effacé loolu laa jàpp daf ko effacé daf ko complètement Amadou Ba bu Fall lu mu wax noonu yépp ci conseil constitutionnel Amoul. sama naataango mi du journal Vox Populi jox na parole qui dit Ismaël Madior Fall mi laji mune ah bu dee yalla tax ñu war ci walu régularité composition conseil constitutionnel bi ah nañu waxante de composition bu normal danaka amul ben scandale nee ngeen di wax ne amul amul violation loi organique conseil constitutionnel nañu xam deug nit da ngay wax lo xam lii du première conseil constitutionnel yàgg na délibéré nii di joxe ay décision wa lii du guleet kon ñan gëstu amul ben problème wa nañu xam deug mom nak ismaël Ismaïla Madior Fall grand jury lañ ko interroger journal Vox Populi reprendre ko ñu wax nak lu xew fële ci Touba ay talibé yo xamanteni ni dañoo rébellé wu danaka ci ben dara bi nekk foofule ndongo dara yi dañoo révolté wu ñan ñi faq ñetti nit am ci gaañu gaañu sama naataango bi di vox populi jox nag parole maître coranique bi mu ne ah boo li nu mel ah amna nak ay taalibe yoo xamante ni dañ doon bousculé ma laaj nañ porti wa benn blessé kese lañ ci enregistré ñu yóbbu nañ ko ci l'hôpital ñu faj lépp loo xamante ni wax nañ ko ci man jàpp ni ay waxu ku daanu charrette la leneen amul sama naataango bi di journal le soleil wax nag ci jeu en ligne yi waaw nag ni daanaka ñu dem ci paris sport sportif sama tango soleil jox nak parole Qui di professeur Idrissa Ba am xam-xam ci wàllu psychiatre la addictologue mom nak mu ah bo xolé bu baax addiction Bobu, day tax danaka yow du jeu ngay gis ci walu paris sportif day dem ba jàppale te doto gis jeu da ngay jouer du jeu rek xol nak ngay gagner koppar do ci mën a sama bi di journal Les Échos wax nak ci consensus bi am ngir ñu qui dit di Augustin sengor doxal continuer di nek ci bop football Sénégal sama naataango ne ah pro ak anti baare ah ñu ngi affronté wu waaw té am na ño xamanteni d'accord nañ ci lu nu mel ñenn ni d'accord nañ ci lu nu mel sama naataango jox nak parole Boubacar Sarr le Cheikh Seck et la Diouf Ndofène Fall ak Roger Mendy sama naataango ne kii di ancien député bi di Cheikh Oumar Sy moom nag d'accordul ak li nu mel né na mom lancer na ben pétition ngir ñu am ben vote bu démocratique walu wuulee kii di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 NCA assurance auto seen savon de Marseille Alfay Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia seen cuuraay raktak bii rey yi ak USAID Breakthrough ñoo leen doon may li ci yéene kaay yi. li ci yéene kaay Mouhamed Ali Moubalan ci ànd la ñu koy jaajëfal mbokk yi foofu leen yemay yéen ci xibaar yi. liste ñu defu pàttali ci li ci gënoon a fës borom fuur yi di tàmbalee lakk tey mburu mu ñuy jaayee ñeent fukki dërëm di dogal boo xam ne nguur gi àndu ci tax ba ñoom borom fuur yi ne bañu ñu si ba dem cib gréew ay xale yi taalibe doon fippu bëgg rëcc ci daara ca Tuubaa ndax anam yeen fa nekkee ñaax si ñoom jël nañu ci gaañu gaañu am na sax ñoo xam te ne jot nañoo rëcc kenn gisu leen na nit si nañu toj sa yoon seen i kër ca Tiwaawan Pël wéy di yëglu ñuy sàkku nguur yi leen ndàmpaay yi mu warloog ñoom itam mu daal di jox terrain yi mu leen diggoon di ñaar fukki hectare mu nekkoon xibaaru suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène ne woon ci micro bi ànd ak Abdou Thiam ci machine bi ñu koy jaajëfal di jaajëfal tam Yacine Pouy ci digital bi ci kanam tuuti seen émission penco ak Barthélémy Ngom jaajëf jëf ñeen ak waaye ku jëf da ngay baale xar mi ku ko gis xam ne doo xaaru bële la ko laaj. Euh, mau bagian rubah baax na ngay laal